asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte di leen dalal fii seen chaîne Dakar People tey nag dañuy am contentement ak mbégte di dalal kilifa borom xam-xam ku ñëpp xam muy Baye Aliou Mbodji sëriñ bi nuyu nañ alhamdulilah ñoo ngi leen di fay waa di leen di dalal si daara ji waa di leen di wax waa bisimilah ja tafadal bisimilah xam naa dañuy tàmbali émission bi rek te ñu bëgg a tàmbalee ci question bu mbokki internet yi kan mooy Baye Aliou Mbodji. waaw yéen gannaaw bañ leen nuyoo ñoo ngi nuyu ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yeeg ñooy na kilifa aada yi di nuyu mbooleem sénégalais fu mun a nekk ci réew mi ak si bitim réew Baye Aliou Mbodj moom benn doomi réew mi la bu juddoo ci réew mi comme doomi réew yépp yàlla nag def mu doon ko eh, xamante ne ku ñu ràññee si wàll ñaan la si réew mi ak si bitim réew mu nekk nag nit ki nga eh, xamante ne moo ngi yaroo diggante Casamance Mali ak Murtani lépp nag mu def ko eh, dundam yëpp no mu def ko si dem gersu ji waaw ji xam-xam no gàddaay ngir ji xam-xam comme nu ko suñu yonent bi jàngalee euh, képp ki nga xamante ne gàddaay na ngir yàlla ak yonentam no dina ko am loolu nag no doon loo xamante ne mooy suñu euh, dund si loolu lañ juddoo si loolu lañ yare si lañ ñu xamee yàlla boole ñoo ay kilifa yu mag yoo xamante ne macha allah ñuñ ràññee lañ jawante loolu moom no duñ leen ko wax inch bi macha allah tontu bi am na solo. Ah. naa dañuy jàll ci question bu ci mujj rek bu ci topp ñu maanaam commencé waxtaan bi te dañu bëgg a laajte lan mooy rab rab seytaane jinne ak rawxaan. waaw laaj nga lu am solo rab ay gaaf la gaaf yooyu noonu léeg-léeg nit moom dana dajeeg no xaj walla nga gis jaan wala nga gis melo yooyu noonu guddi na fekk yow rab nga dajeel te xamoo ko bu la yàlla mayut sens na première rës-rës bi mun na laa indil na gàllankoor su fekkee na sa fit attanu ko wante nag tey bu ñuy wax ci wàll rawxaan loolu je melo la boo xamante ne melo nit la loolu mooy base boo xamante ne moo njëkk si base pour ki nga xamante ne dafay toog pour ñaan mu mun a toog loolu doon wéeruwaayam ndaxte rawxaan moom dafa na composé ay biddiw biddiw moom la ñuy wax ne elmul en nujum ay chiffre la comme yàlla léppam si chiffre moom moom la ko composé no si bile àddina waaw no xattaa sax nit ki boo ko bëggee woo nga jot ko ay chiffre moom nga bëgg a en composé comme yàlla nag moom dafa na composé biddiwi nit ki si chiffre muy ànd ak rawxaan wala xuddaam wala malaaka wala li nga xamante ne moom mooy tabiam safara ndox suuf wala ngelaw yooyu noonu waaw na sëriñ bi foog mu maîtriser ko pour muy mun a ñaan ñaan bi dal boo déggee bu njëkk euh, ne kilifa yi di wax ni kii danañ koy ñaanal ñaani xaas xaas bi mooy que ne yow foog nga maîtriser wàll rawxaani nit ki mu ànd ak rab boo xamante ne mooy ruuxaaniya loolu da loolu moom bokkut ak ruuxu loo xamante ne bu nit ki di nelaw mooy dox si jaww ji di dem li ay xibaar loolu noonu bu ko nit ki xamee mu composé kook li nga xamante ne moom mooy raw xaanam ñaankat foofu lay mun a toog di ñaan di def di dindi noo dafa bokk nag si melo yi même rawxaan yi non dafa bokk si melo yi nu nit ñi seen melo yi wutee boo xoolee tey rawxaan yi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñu weex yi mooy tubaab yi ak rawxaani naar yi ak rawxaani nit ñu ñuul ñi no dafay wute léeg-léeg nit wooñu fi nga xamante ne moom mooy bitim réew façon ñaan bu nekk def naa ko waa façon sarax bu nekk def naa ko façon sangat bu nekk def naa ko na sama ndigg li dafa fees tepp ak ay tàkkaay te mënumaa gis dara ñaankat bi moo xamut rawxaaniya rawxaaniya mooy melo bi nga di xamante ne nit ki buy nelaw loolu mooy en denc moom di dem noo di doxi ñaankat bi nga xamante ne moo ngi ñaan moom toog bi muy toog rawxaan bu muy ni loolu mooy composé euh, rawxaaniya bi su fekkee ne si réewi tubaab yi la ñoom juróom-ñaari rawxaan wala nu juróom-ñaari melo si rawxaan moom la ñu amee loolu noonu képp ku ko maîtriser rek loo ñaanal nit ñaan bi da koy yomb wante boo ko maîtriser no da ngay làmbatu te réew mi dafa toll foo xamante ne ñu bëri dañuy làmbatu wante ñaanuñ si xam-xam si lu ñuy wax elmul asraar xam-xam boobu noonu ñu bëri maîtriser wuñ ko wante ñu bëri no dañuy ñaan rek ngir yaakaar nga xamante ne moom yonent bi moom moo ne ñaan mooy gàllaaji jullit ñoom dañuy toog rek di ñaan wante loo gis dafa am tegtal loo gis dafa am yoon loo gis moom dafa am sañsañ mooy xaas bi nit ki looy def te amoo si sañ-sañ te munoo see def xaas yow da ngay tàndaasu rek wante doo si def loo xamante ne mooy def wala mooy dindi loolu moom laa lay wax si wàll ñaankat ci wàll raw xaan ak yooyu si gàttal no buñ ko toppee no temps bi daf ñuy tënk wante fii ba suba mun naa di lay wax yoon yi benn benn benn benn par benn te du jeex wallahi macha allah ci wàllu kaaraange waaw lan mooy xam nga kaaraange mooy li nga xamante ne na gannaaw nit ñi fañ ko nangoo ñoom dañoo gisoon suñ yonent mu doon nit ki nga di xamante ne yàlla moo ko yónni si xeet bi waaw di xam nga képp ki nga xamante ne yàlla yónni na la nit ñoo ngi njortu ne kii dafa war a am na portége bu mag si lépp li nga xamante ne rek moom lay dox wala si lépp li nga xamante ne moom lay jëfee waaw nit ñi nag na fuñ jaaxlee ñu dem bañ ne ah yonent boo xamante ne ñëpp moom lañ yaakaar euh, tey de moom la sixar jàpp tey moom la liggéey jàpp moom yonent bi Eh, ki eh, ki nga xamante ne moom mooy wéeruwaayu jaam yi ah waaw tey de moo jaaxle si jaaxle boobu noonu si si la nag ay secret ñëw ay secret yoo xamante ne si kaaraange la wa da see bëri nag yoon wante nag na am na yoon yoo xamante ne si yuñ gën a ràññee am na lu ñuy wax na xisbul baari moom mooy en euh, euh, tamit na am na beneen yoon bu ñuy wax en euh, sayful awliya mhm. yooyu noonu ay kaaraange la yoo xamante ni nit ñu yàlla baaxal ñoom xam nañ ko ñenn ñi nangoo nañ laayee biir ñenn jaam yi ngir yaakaar ji bi nga xamante ne ñooñu téye nañ ko ñenn ñi xam nañ ko wante nanguwuñ laayee biir ngir njëriñ na boo xamante ne moom la kii ne ame waaw kaaraange nag man damay faral di wax ni nit war ngaa ñag sa bopp lépp nga def ko dëgg na ba lépp li nga xamante ne fekk nañ ko na pour mu laal la bu ñëwee dëgg bi jam ko sa jabar war nga koo xaar si léppam ba nga jo xamante ne benn saay-saay moom du ko détourné sa doom war nga koy xaar ba nga euh, xamante ne lenn du ko gàllankoor ak fu réew mi toll nit war naa xaar boppam si melo yépp yi nga ja xamante ne même su fekkoon ne balaa moom dafay wàcc si réew mi moom dina bokk si ñi nga xamante ne yàlla dina ko muccal si boobu mbir loolu noonu doon na si li nga xamante ne màndargay kaaraange la waaw ñun nag kaaraange yàlla dogal na ñoo ngi koy defee si li nga xamante ne moom mooy benn na sagar bu xonq fa am ay téere yoo xamante ne moom lañ siy bind moom dafay ànd ay xeer yoo xamante ne xeer yu teen bu të mooy teen bu të ah, ana kii nii ne xam ngeen keew si teen yu mu ma jógee bu keew bi jógee ndox mooy génn wante nag buñ demee jëm si biir ay xeeru sew rek ñoo si génn pour ndox ñëw dafay doon ay gàllankoor loolu noonu am na ay mbir yoo jo xamante ne képp ku ko boole no dana aar nit ki aar boo jo xamante ne bu àddina yëpp jógoon di lay fexel yow yàlla moom dina la muccal ndaxte yow da nga ñàkk sa bopp loolu mandarga la si kaaraange si gàttal waaw macha allah tontu am xam naa dañuy jàll ci question bu ci topp rek ñu bëggoon xam am am bu lan moo koy waral ak lan moo ko war waaw xam nga réew mi ah, wala sax man si sama jëmmu bopp léeg-léeg nit laaj ma ne sëriñ bi nit ki léeg-léeg no da ngay jékki-jékki rek nga nekk ak moom te doo xam lan la moom wala lan mooy sekkereem non nga jékki-jékki rek nga gis ko ay mbiram di tàkk rek loolu noonu secret la ah je gis nga yàlla lépp lu mu bind rek dafa am baatin euh, te boo xoolee doomi aadama cër yi nga xamante ne moom la ko yàlla composé moo ngi tolloo ñetti téeméeri cër ak juróom-ñaar fukki cër ak juróom benn cër bu nekk rek secret la si nit ki secret boo xamante ne bu ko borom xam-xam gersoo mun na see euh, jëlee loo xamante ne mooy njëriñ waaw mm, kii nii léeg ñoom dana am ñoo xamante ne ñoom dinañ nekk si mbir mu leer leen ne mbir bii nii yoon yi naataange la te yàlla lépp lu mu bind rek Ah, bind na ko ngir may ko lu ne moo tax ah, nit ki no bu demee rek no ba tënku si yenn yi wala nga gis de nit ki ah, dem ba moom si jëmmu boppam muy yëg ne ab wàññeeku moo ngi xam si ay mbiram loolu yëpp dafa am ay melo yoo xamante ne ñoo koy waral si nit ki wante si gàttal daal na kii nii mooy kene ja am am bu gaaw loolu yàlla moo ngi ci may ñu si legee ba ay mbir léeg-léeg nit ñëw ñu yóbbu ko ji foo xamante ne euh, sa sa Casamance maa ngi na kii sax profito sax di nuyuwaale xama mbokk yooyu noonu Casamance euh, sa fooñi ha ɓe mbaadi manninkol min ɓe casamance no fooñi haaji o baaji kundankol hani sañan kundankol mbe kontonna baake inchallah te ñi waatin kono mi naala foofu noonu moom dafa doon ay bërëb mm, yoo xamante ne nit ki dafa am loo xamante ne ji moom nga fay teg wallahi billahi taalahi ji wa rabbul izzat six mois nit ñi na commencé wax ne kii nii ndax dafay wëlbati xaalis wala mm, lum doon fekk xam-xam la yi yàlla si jëmm ja boppam lépp la maye fu jaan bi tënk rek fu mu tënku rek ñàkk a yitte moo ko fa tënk bu bante moom ja xam-xam moom moo ngi def ba tey eh, te ñun yàlla mu ñu bind moom ñuy jëflanteeg ay nit ñoo xamante ne ñoo ngi laayanteeg ñoom biir te yàlla rek tax te ñooñu man ñu may seetaan ñoom xam nañ ci dara loolu daal foofu laa lay tënkal eh, si wàll am am bu gaaw waaw. macha allah xam ci wàllum nopp. waaw. lu koy waral. xam nga nopp man si sama jëmm bopp man damay ja faral di wax ne noot moom caaxaankat moom duma ko noobal ndaxte ba pare damay xam baakaar boo xamante ne moo ma siy topp man ñépp ñi nga xamante ne topp nañ ma ñoom xam nañ man sama noob lu mu yàgg-yàgg mooy juróom-ñaari fan moom du ko weesu te te noob bi lu si gën a garaaw même su fekkoon ne yow koy noob junne yu nit ñoo koy topp yàlla yow la koy tàggatal te tàggat bi yow doo ci sonn moom xelam ak xolam ak li nga xamante ne moom mooy yuuram moom mooy wëlbatiku si yow euh, na boo xoolee yuur yuur moom dafa kii moom dafa composé woo ak euh, nga xel loolu boo ko no calculer ci wàll euh, no baatin no comme buñ ne damm moom dafay na tolloog ismu jalaal 644 loolu noonu moom dafa doon mbir yooja xamante ne noob la dafay na wëlbati xelli nit ba nga xamante ne foog gisut la wala dëggut la du mun a lekk fitam day yëngatu loolu noonu ay noob la yoo xamante ne ah, ñëpp ñu ñu na seetaan waaw ñoom xam nañ ne lii lu wër la ndaxte yàlla dogal na loolu ñun defal nañ ko ay nit yoo xamante ne ay nit ñu ñuul lañ ñu toppoon ay tubaab yu jigéen bu bu bante nag lu leer lañ leen wax takk rek ñooñu tey yàlla dimbale na ne nga bay takk ñooñu ñu ànd ak ñoom fii ñëw ñu tuubal leen loolu dafa doon mbir yi nga xamante ne yàlla moo ñu ko baaxee ak suñ barke maam yi noog bu gaawee boo gaaw ñett fan bu yéexee boo yéex sept jours loolu man dong maa ko ñemee wax si biir réew waaw te dara du si dañ loolu daal moom lañuy liggéeye liggéey si wàllu noog. macha allah mbokk internet yi kon yéen a ko déggandoo muy noonu sëñ Baye Aliou sëñ Baye Aliou Mbodji xam naa dañuy jàll tamit ci question bu topp rek mooy wàllum. papier parce que dañu jamono yuñ toll dañoo seetlu ne loo xam ne dafa nekk yi nga xam ne dafa jafe doomu aadama yi parfois dañuy bëgg rek dem nañ ay at lu nekk def nañ ko mais ñu mun a jot ci ay papier duñ mun a am visa wala ay passeport yu déposé loolu yëpp day nekk loo xam ne daf leen di të souvent. loolu moom suñu enjeu mbir la yàlla may nañu si waaw loxo bu gudd ñun si wàll papier si niñ koy defaree mooy que ne jë pitax bu weex mooy na pigeon bu euh, weex su fekkee ne kuy déposé nekk fii si biir réew mi pour dem ambassade bu mun a doon pour ñu may la visa dafa am loo xamante ne moom la ñu kii nii liggéey ñu jënd loola pittax bu weex nga def ko si leket nga sangu ko ji bon set yow ndox boobu noonu no nga sangoo ko na fekk ñun lu ñuy liggéey liggéey nañ ko ji ba pare ndonga bay pitax bi moomu naaw su naawee kenn mënta na fexe ba yow eh, sa mbir moomu noonu no du sotti bu naawul nag bul sonal sa bopp boo demee si ay sëriñ no da gën a sonn rek wante boobu at ah, doo si gën réew mi su fekkee ne nag ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew wàll këyit Euh, doon loo xamante ne moom daf leen a tëg ñooñu noonu dafa am benn secret ji boo xamante ne moom lañuy toog moom lañuy def yow booy dem woo ñu ret ñu ne ak ah, ah, kii nii nga ne ñu demal dafa am na secret bu wër loo xamante ne ñun ñoo ko tuddee Mouhamad Yaasin ñoo ngi lay yónni si bërëb na sàngam am ay mbiri baatin yoo xamante ne moom lañ siy composé ak nit ki wallaahi na boo demee su fekkee ne yow walla këyit daf laa tewoon si réew boo nekk at boobu noonu walla weer boobu noonu yàlla dina la yombalal sa këyit loolu daal yàlla moo ñu ko xamal si teraangam si mbaaxam si yërmandeem ñoo ngi koy jëflanteeg jaam ñi si suñu mm, euh, mbaax ak su suñu yërmande sonaluñ si kenn. waaw xam naa dañ fay jaaree rek. waaw ko ñu waxaale ci wàllum actualité maanaam insécurité bu am ci dëkk bi. wax ci sa nga tey boo xoolee dëkk bi mm, nit ñi ñoo ngi wax ne sëriñ seex Tidiane Al Maktoum moo doon wax ne sang leen réew mi waa bu ngeen ko sangul deret. ah dina ko sàng réew nan lañ koy sàngee loolu moom mooy question bi réew de duwul ne ay tuuru euh, deret yu bëri moo koy sàng comme ni ko ñenn sëriñ yi di waxee déedéet loolu sàngut réew réew duwul ne ay en sa kii ni jaayante moo koy sàng réew xam nga de moo koy sàng al aqu muslim jullit na gëm na jullit moom mooy mbokkam mooy que ne ñu raxas xol yi ñu defar xel yi ñu dimbalante te yàlla tax ñu jàppante te yàlla tax képp ki nga di xamante ne yéene nga sa bopp jàmm nga yéene ko sa morom jàmm ñu bëri dañ ñuy dégg nañ sàng réew mi nañ sàng réew mi ne te xamuñ ku nekk no di koy firee nga xamante ne noonu la ko neexee jàmm moom mooy sàng réew jàmm ak yërmande moo taxoon yonent bi jóg loolu fépp fi nga xamante ni nekk na fa rek deret moom du fa tuuru si gàttal loolu ji amul ay sarax loolu ji amul ay waaw na président dafa war a ñëw ñaanlu loolu amul ministre bi dafa war a jóg ñaanlu loolu ay naxaate la loolu ay kàcc la man yooyu ànduma si mooy que nit ñi nañ ànd si yërmaande nañ ànd si dimbalante nañ ànd si jàppalante ku nekk loo yéene sa bopp na ko yéene euh, sa moroom loolu bu ko defee rek réew mi moom euh, su boobaa moom mooy sàng boppam loolu daal moom laay dënk nit ñi euh, te tamit maa ngi ñaawlu rey bi nga ci xamante ne moom la ñuy rey doomi réew mi temps yi loolu dafa ñaaw jullit warta rey mbokk jullitam ngir bëgg àddina wu jullit warta iñaane mbokk jullitam ngir bëgg li nga xamante ne moom mooy alali réew mi loolu dara jarul ko nit ñi nañ rafetal seeni xol maa ngi ñaaw ñaawlu bu baax a baax ba si kanam yàlla temps yi taalibe baay boo xamante ne moo jóge Amérique ah, ba ak foofu nu ko yàlla bàkkanalee nu yàlla teraree réew méew mu lépp nga fa dara manqué wu fu mu ñëw réew mi ngir jaamu ci boromam te yàlla rek tax ñu koy rey lii lu ñaaw la ñii ñu ñaaw la maa ngi ñaan yàlla si kattanu yonent bi ñooñu ñoom ñu rey ko yàlla ne leen yàlla nit eh, te bu leen yàlla niitee yàlla nañ leen rey ndaxte loolu moom la yàlla sant bakkan bakkan al nafsi bil nafsi ku rey dañ laa war loolu rek moom mooy loo xamante ne mooy solution bi lii daal la amoon loo xamante ne ji moom laay wax macha allah di wax wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu